dama jug di sant ki may salaam te mooy rabbana buur bi tuddu salaam dama rabbana buur bi tuddu salaam di buur yàlla mi doon salaam di jox xayru xalqihi salaatu salaam na salaatu dagan na salaam jox ngeen gi yoneen alayhi salaam ku gëm yàlla gëm sang bi am salaam ca buur yàlla buur bay turam di salaam yoneen moom la buur yàlla may lu sama bopp nekk nii nga am sa bopp moo tax nag barki yàlla defoo ko ma daw de. non non man damaa leer leer laa lay wax maanaam liggéey moom boo ci nee. waaw gëm ko bul kenn. parce que affaire moom soo waay. waaw waaw waaw. moom boo defee dañuy wax boo deful dañuy a fi. Ah. kii sama patron a nekkee sa yan sans façon wax nga doon wax. yow loolu kay wax ko loolu dama ko d'accord. kon bëgguma même pot gi ngay indi ci kër yi muy solo solo nii weeru koor gi ak fu mu jugee yëpp xanaa jugee wala école ñëw jaar ci mbedd yi jaar bi. ah waaw mais man solo ma ko moom moo ko solo. waay waay waay nank nank nank nank nank laa ilaha illallah laa ilaha illallah tëll tëll soo eggee ne ko na dem rëbb ji ay sibax soo ñëwee toog ko ndox xanaa kon yaa ngi lay lekk ii waaye am na si jéeg ji bees ji di sëy baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg nan dem rek jéeg ñoo xam ne mën naa sax leen gën si kër. kenn. yow yaa am bu ji dox sa tànk yu xar yi.